te diyaari unaasin këri ay nit la saadatin ñu di ay sang ahmadiyat ñu ko jug ahmad tuqaatin ñu di wa ragal yàlla siqaatin te di ay ndëgër laay laa tuxaabu ñun deeful sikkal xisaaluha seeni jikko bàyyil gëléem gi muy dox rekk di boole dox guddeeg bëccëg ba ba ngay àgg ci këri sang yi nga xam ne ñoom laay wax nga doore sippi bagaas yi ay sang lañ yu askanu jëm ci Ahmadou Bamba di ñu ragal yàlla di ñoo xam ne seeni jikko amul dara luñ cee xeebat ak sikk lu joowul hudaa ñooy biddi lëndëm nga turan mboole seen fa duunaka jàppal samsaha jantam ba waqud wataha ak royteefam wa kooku nag ruuxul wujjoodi mooy ruuxub mbindeef yi ci maaluhaate mooy seen yërukaay sang yi mu lay wax dañoo mel ne ay biddiw seen kilifa nag mel ne jant mooy sëñ mag bi mooy jant bi waa këram ñi ñoo mel ne ay biddiw sëñ bi la ne mooy ruuxuk li yàlla sàkk mooy yërukaayu li yàlla sàkk huwa moom ibnu xabibillahi mooy doomi xabibullah ahmadu ahmadu mooy turam man mooy ka nga xam ne te naal dana amee bi ci moom maqaamaatil kamaali maqaamay mat ga rijaaluha seeni góor ñoom maqaama ya haa boobu day dellu ci maqaamaat yéen moom xabibullahi mooy maamam dana jekki-jekki ne man doomi xabibullahi la ndax yonent bi daana wax ana ibnu abdul muttalib mu ne ahmadu bamba la tudd te mooy ki nga xam ne góor ña àgg ca mat ga ci moom lañ jaare ba àgg ca fatan as cam la lam yasmah sos mësta tabe xattu mukk zamaanun jamono bi mislihi ci am kemam wa in kasurat ak doonte bari na xiilul xulaati nee na ñooy way bañ ña waqaaluha ak neenay way bañ ña xiila waxees na ak xaala wax na rek moom lañuy jël noonu xaala mooy wax na kon ñu ràññal ko ko wax xiila waxeef na jooju nga xamoon nga xam ne ràññaluñ ko ko wax dana jëmmali joo xam ne mës ñoo gis ci jamono ku mel ne moom donte nag bañkat yi ay noonam bana ñuy bari wax naa nee na ñoog diw nee naag nangam ak nangam waaye daal ku mel ne moom moom àdduna mësu koo indi idas tafa ndem rang na arbaabul wilaayati waroom wilaaya ga wanta daw te ñu pencu bi kulli makaanin ci bépp béréb xaddamat fu kon jiital ko fi xaaluhaa seeni kooy nee na mboolem ñi amul cër ci yàlla bu dajee ci benn béréb ñëppay maase ci jiital ko xam ne yàllaa ko jiital ñu jiital ko famal xutubu déet xutubu ba illaa tilwuhoo ndare muy aji toppam waxu laamuhoo tey as ngóoram wa asxaabuhoo te ay saxaabaam sax ay àndandoom sax moom sëriñ bi kulul mulooki mboolem bóor yi xiyaaluhaa ñoo di seenu njaboot yéen a xutubu li muy màgg màgg ci ni ñuy tegalee daraje wilaaya yi day mel ni as ngóor rek ci sëriñ bi ay dongoom rek gaa yi sëriñ bi rek buur yi dañu topp ci ñoom mel ne ak njaboot ñu leen di wombat wamal yum nu déet barke ba illaa ma ndare muy la nga xam ne xabat xumaye na ko yaminuhu loxol ndey jooram ba wama chemlu déet mbooloo ma illaa ma ndare muy la nga xam ne xabat fu laq na ko chimaluha càmmooñub ndey joor ba haa bi ju chimal da ko delloo ci yaminu moo tax mu def ko ha di achamlu moom mu zakkar la dane sëriñ bi lépp luy xeetu barke yàlla da koo teg ci loxol ndeyjooram lépp luy mbooloo muñ bëgg mu tase yàlla teg ko ci loxol càmmoñam wamal xeeru déet yiw wa illaa fi sulooki sabilihi ndare muy nekk ci suubu yoonam wi wamal mayru déet xont ba illaa ma ndare muy la nga xam ne iqtanatu fàggu na ko shibaaluha xaloo gi yoonam wi sabil daañu ko jigéenal li ngay jàng ci alquran man amana bihi wa tabxoonaha xiwaja haa boobu mu ngi ko delloo ci sabil ba ko jiitu daa wax ne lu baax lu ne ñi ngi koy amee ci aw ci yoonu sëriñ bi xéewal gu ne mën nga ne ay doomam ak ci taalibeem ñoo ko waree boo ko bëggee rek toppal ci ñoom huwa moom alxaarifu mooy aji xam ja alwablu te mooy waame wa alxazimu koy aji rëy nawaaluhoo mayam nga ida ummatul muxtaari ndem xeetu yonante bi xafat wayef na tilaaluhaa seeni mësëy ab tall bi firi mësëy koy jam xoo tilaal daa wax ne mooy ko xam yàlla ay mayam baree ne ndoxum géej su xeet yonante bi demee ba yittewoo ndox ndax li ñu wax mësëy taw su ndaw sax amuñu ko moom sëñ bi mooy mel ne waame sottil leen nag lu dul jeex xadiimu rasulillahi mooy liggéeykatu yonante yàlla wi waaritu sirrihi te aji doon sekreem ba alayhi yàlla doole nekk ci yonante bi salaatum dolli teral lantar yi ma gog du dañ zilaaluha ay takk ndeeram sëriñ bi mooy liggéeykatu yonante bi moom la yàlla may mu doon sekreeb yonante bi mu ñaan yonante bi nag yàlla dolli ko teraanga loo xam ne day mel ne kër gu dëll goo xam ne day sax rek di wéy ayaa cheikhu yow sëriñ bi yaa xawsal wujoodi yow xettalu mbindeef yi wa xaysaha tey seenub taw wa man tey ka nga xam ne xoo moom baabul makrumaati mooy buntub teraanga ya manaaluha te mooy seen amukaay it boole ci wa man tey ka nga xam ne xoo moom waxun mun ak màng la wa rahmatun te yërmaande la dil haadiina ñeel way jub ña wala ñeel way jub ñay jubal wa amma odaatullaahi ndaal noonu yàlla yi anta yow nakaaluha yaay seen mbugal fa anta la woon mu dagg faaga ndax lor yooyu ndax gannaaw am daañu fa indi faa lu may ci lor yooyu ida masinoona ndeem at ya al aslu bekkoor xaddat màtt nañu ñoom at ya binaa bi ci ab sellam moom bekkoor ba falaw ta nga damm xarban ñaw ka laxaa ñeel leen fa zaalate dañ wabaaluha seen mbas muy seen musiba dafa woo sëriñ bi ne ko yow mi nga xam ne yaay xettalu li yàlla sàkk mel ne taw ci ñoom ci njariñ di koo xam ne lépp luy xeet teraanga yaay bunt ba ko bëgg ci yow lay jaare yow mel ne xéewal ak yërmande ci ñi aw ca yoon wa noonu yàlla yi nag nga mel ne mbool gu rëy rëy ci seen kaw ne ko yaay ki nga xam ne su ati bekkoor yi ñëwee ba sonal nit ñi mel ne bekkoor bi daa ànd ak sell buy màtte ba matt nit ñi matt matt méttee métti yaay damm sellam boobee mu doon màtte bekkoor ba muy musiba ma daal di deñ ñu seetlu ne bu dee ci naxu ki jàng day tolloole diggante in ak muskilaat beneen ajasat daal di wax wa in ajasat ndeem lottal na muskilaatun waylantu kula aalimin fekk wa in ajasat ji mu wax moo natale ajasat ci diggante in ak muskilaatun ndax in day jumtukaay sart dañu bañ mu dugg ci mubtada nga wax wa in muskilaatun boo bëggee wax wa in ajasat jële itam teg ci muskilaat ji day mel ne faaxil boobu dafa jiitu ajasat bi fi'al bi ku la xaalimin jëpp aji xam kashafta nga wuññ laxaa ñeel leen sirran secret fadaa te leero xilaaluha seen terute la su borom xam-xam yi amee lu leen jaaxal lu rëy rëy rëy yaay leeral loolee génn secret ba ca nekk ba seen kumpa denca wa in kasara ndeem damm na albalbaalu njàqare baalan am xel lioy yelin ñeel way ñàkk jabarta nga jàng laxaa ñeel leen baalan solo baalan mbir li ànd naka ngir naka yow maaluha yaay seen alal ñi bari njaboot te ñàkk buñ demee ba nar a jaaxle seen xel dalatut yaay dalal seen xel ndax yow yaay seen alal mooy buñ la amee rek ñàkkatuñ dara fa anta yow imaamul hadrati yaay ilimaani hadra ba al na ba wiyati bay ko ju yonante allati ba nga xam ne chakarat ka sant na la rijaaluha ay góoram mastataat kem lam man dane ko yaay ilimaani alxadratu annabawiya yow la yonante bi jiital ngay njiit ci lislaam ji mu fi bàyyi te mboolem góori diine ji maase nañ ci sant la baqiita yal na nga des baqaa ak dëhëri desug jamono maa dumta li feeg sax nga baax yenn di aji des fama waabilaatu mujhi déet waamey pajug aajo yuxsha dee fi ragal zawaluha ak dañam maa dum te baax yéen dafa jàppaloog fama waabilaatu mujhi dane ko yàlla nga fi des di fekk àddunaa ngi dox di wéy yàlla nga fi des rek nekk feeg nun nekk feeg waa jamono ndax li feeg yaa ngi fi waamey pajug aajo day dotti rek kenn du ca ragal muy séwét mbaa muy taxaw li fekk yaa ngi fi nag la wax ne waa may paju aaju yooyu duñu dañ di sotti rek fu ñu toll kon yàlla na fi yàlla bàyyi nga nekk fekk waa jamono xodaylu ko sas njaam ibrahimu te mooy ibrahim joob ahdaa addiyal na ilayku moo jëm ci yéen xasaayida ay xasaayid kal azhaar yu mel ni ay tóortóor xasa yooyu jafe na te la misaaluha seenum kem sas njaam su ñàkk solo su tudd Ibrahim Diop al-Mashari moo la jox addi xasida yi nga xam ne daa rafet ba mel ni ay tóortóor gis xasida yu mel ni ñoom jafe na madaxtuka tagg naa la laa am nii du caagéen naka man wafaytu matale naa bi xaqikum wa ci seen àq fa am daaxu naa suñuy tagg tiwaaluhaa way gudd seen mislul xisaari kem way gàttee la walakin naxaa waaye ñoom nag ci xuddul muqil li ñooy man manub aji néew kàttan man manub aji néewle xasaa tan xattu xëy na lee mu sippikoo bihaa ci xasida yi xan ab hurina wali sunuy gannaaw fawran ci saasa yi saasa siqaaluhaa ay diis diis seen wala way diis seen ya diis ci seen kaw ñoom gannaaw yi dane ko dama laa tagg waaye yaakaaruma ne kat tagg yi mën naa wax sa mbir sa darajaag sa dayo fa mu àgg sa borom rek ko ko xam tagg yi moom jot mu ne mën naa matale sa àq ndax tagg yi ca gudd ay ci gàtt ñoo yemoo dala mënu ci àgg ci wax yaay kan ak wax say ngëneel ak say daraja waaye nag ku ne la nga mën rek ngay def loolu nag laa mën xëy na ci mbaaxum yàlla lu néew néew bakkaar yi nga xam ne moom laa yemoon ci sama gannaaw mu dis gan xëy na tagg yi tax yépp yàlla wàcce ma ko jéggal ma ko alaa yëgal faq di yàlla na nga faj xaaj yi sama aajo yaa maladiya yow sama wérukaay xaaji lan fi saasay saasa waxëb te yàlla na nga may lii ñeel ma mun naa nafsi mébéti sama bakkan fa ante yow simaaluha yaay wéerukaayu sama bakkan taqabbal yal na nga nangu bi fadlin ci ngëneel min ko ci yow min nii tukkee ci man xasaa idan ay xasida ilee ko jëm ci yow wa min ka te bàyyikoo na ci yow batuhaa seenug tàmbali wa ma aaluhaa ak seenug mujj dane ko yow sama wéerukaay bi maa ngi ñaan nga fajal ma saa aajo fi saasay saasa may ma li nga xam ne moom lay bëgg te di ko mébét ndax sama bakkan bii kat yow rek la wéeru wéeruwul ci keneen kon nag yaay defare defar ko xasida yi ma la tagg maa ngi ñaan nga nangul ma ko ci sa mbaax ci sa ngëneel rek ndax kat lépp ci yow la tàmbalee lépp ci yow lay delloo su ma mënee lii yaa tax xalaa xayri saawin yàlla nekk ci ngën ji aji sax bil batiixi ci batiix wa taybatin ak tayba wa qad raawadatu te mbir moom sàkk woon na ko bi duhoo bi ci soppi ko ay wurus jibaaluha seeni doj salaatun dolli teral wa taslimun ak dolli woolu yeddoo maani yooyu danañu sax sar ma dan faaw mada dëxëri diirub jamono maa jalaa li feeg wuññ na addayaa ji lëndëm ya xilaalu xaa seeni terute bu fekkee dafa def maa jalaa sulaasi nag moom da nga koy def lamalif jalaa ya juloo man koo su waaw la su boobaa doo am yenn ra soo jàngee maa jàllaa nag sàddalaam gi nag moom noonu lay mel moom kon moom day war alif gi day war yenn ra alif gi alif gi moom bu dee danga ko def sulaasi mu dana fi nekk maa jalaa alif gi dana fi nekk waaye bu dee góor yenn ra moom day dagg boo defee maa jàllaa alif googu day dagg moom ndax daal gi sàdd ci addayaa ji mahal aali ànd ak ñooñ wal ashaabi ak saxaaba ya xayri aimat ñooy ngën ji ay njiit masaabihi sublil makrumaati yadi lampi yooni teraanga ya kamaaluha loolu nag mooy matu xasida gi di ligoogu ci yonante bi loolaay matu xasida gi xëy ndaa jàppe kamaalu xabaru mubtada in mahzuuf dafa ñaan ci mujjug xasida gi yal na yàlla saxal ci ki gën ca ña nekk ca Madina ak Makka ak béréb yooyu yépp te yàlla mayoon ko doj yi soppi ko wurus mu jomb lu loola kooku ma yonante wi yal na yàlla saxal ci moom ngën ji teraanga ak ngën ji jàmm li fekk nga xam ne yaa ngi gis lëndëm weer dikk di dàq lëndëm nga yal na yàlla saxaloo ci yonante wi ak ay mbokkam ak i saxaabaam xasida gi nee na foofu la ko yemale walahu aydan amaan da ngeen xasida gu wax ne ilaama ba kañ tus miina da nga boom bux jëtii sama nagu xol wi tus miina da nga boom bux jëtii sama nagu xol wi suleymaa yow suleymaa bi sahmil hajri ci fettuk tong fettuk jàmbu walam tuxti te moyut mahajjat yi sama yoon xawaa ki sak sopp day waxanteeg jigéen di tudd Suleymaa dañoo aadoo tàmbali noonu seeni way du jekki-jekki rek wax lañ bëgg a wax lañ koy tàmbali tudd jigéen juñ amanteeloon mbaa tudd ay gent yooyu rek ni ko waykat yi baaxoo defee ne sax du mel ni Suleymaa mu wër moom ñu waxanteel waaye mu tàmbalee ci Suleymaa waaw nii nga xam ne moom ngay faate saa bakkan ji kaw sànni ma fettu jàmbu maa nii nga may tongoo ba mel ni tong gi danga ma cee rey baa dee wet te man bëgguma ku may yow waaw loolu moom ba kañ koo xam ne bëggul ku may yow nga di ko jàmbu rek di ko tong rek ba mel ni jàmbu gi day fett daal di koy jam rey ko ba mu dee wet loolu ba kañ wa kay fa takk wii na naka ngay ñaase binaaril boo di ci sa waraw sori ga jafootan ngir ak bëcc ngeel xasan ay baljat ay butiit xasuha yoo xam ne seen biir mooy la leen fees xisqun ak cofeel la wa safu mawaddatin ak seetlu cofeel mu ne waaw sama biir daal dara nekku ci lu may sopp la cofeel gu wér a wér lu tax nag ngay jël sa waraw sori maanaam sa waraw sori ma rek moom ngay jël di ko ñaase sama xol beeg sama res beeg sama bëtit yi mooy koo xam ne moom biiram ëmb ci lu may sopp la lu tax nag nga di ko mettital ci sawaro di daw di ko sori rek nanguwoo koo jege fafil xal bi nekk na ci xol bi min nii ci man min bihaadi ki ci sa sorente mooy sori gi ma sorente yow nekk na ci xol bi jamaratun aw xal matal tëxabat woo xam ne saa yu tàkkee faadat daal di baawaan madaami on muqalat yi rongoo ñi sama nagu bët wi sori gi mooy sori dafa tax xol bi mel ne aw xal moo ci nekk di jëf-jëf yi te bu nee jëf-jëf rek rongoo ñi moom sotti ko sotti ko bay baawaan atadri na ndax da nga xam maa la nga xam ne alqaa danaa taseeg moom minal waj di ci cofeel wala waj di ak njàqare la neexee ni minal waj di ci njàqare wala jaba tey ida ma laylatul hajri ndéem guddik jàmbu ga jànnat suturaal na àlla yi ci man man nga ne jànnat kukku na àlla yi ci man xanaa xamoo boo ma jàmboo la may fanaane ci xeetu njàq rek tiis xanaa xamoo loolu naxam waaw laysa yaxfaa du nëbbu xaalu man mbirum koo xam ne an xala sewal na ko alxawaa cofeel ga wa af naa te jeexal ba moo xam ay rongooñ min fu ci moom zikrul ahibati fàttaliku soppe ya da ko laajoon ne ko xanaa xamoo li may daj ci boo ma jàmboo bu guddee du ma nelaw li may ëmb ci njàqare xanaa xamoo ko mu tontu ne ah kay xam naa ne xam nga ko ndax koo xam ne cofeel ga nekk ci moom da ko yett ba mu sew ruuc bu dee fàttaliku soppee ay rongoñam di tuuru kooku la nekk ci moom kenn umpaleetu ko mata laaxa saa yu feeñee min naxwil ahibati tukkee ci wàllu soppe ya baarixun melxat boo ko defee yazal la muy jawaabi mata yazal la mu daldi yendu rëhnal mët rëhnal maniyati di kuñu tay lay dee li farati shawx ngir ëpp cofeel ga nee na kooku sopp dëgg dëgg mel ni moom su ak melxat melxatee mu xool bu melxatee fa féeteeg ay soppeem rek day mel ne cofeel gu ëpp ji da koo jàpp ba mel ne ku fi nekkatut ba mel ne ku dee fama junna dofaleefut fii laylaa ci laylaa wala xind du caageenu xind xaashiqun jenn aji sopp kama xushaaqul bariyati nit nga xamee ne way soppi mbindeef yi junnat dofaleef na leen fii ki ci yow ne ko laylaa ak xind ak xeeti jongoma yooyu dëgg la sax am am nañu leen soppoon ba mel ne dañoo dof waaye nag ni ma gisee ñu la sopp dofe ko ci yow moom mosuma gis koo xam ne kenn sopp na ko ba dofe noona ca moom araada naa gis alxawya réer ga rus dan mu di am njub fii ki ci yow dafa maas fii ka fii ki wal faqra danaa gis ñàkk ga xuniyatan mu di am koom wa kullul lazi te lépp li nga xam ne tar day na xoo da nga ko gërëm fa xoo moom mu ñeet yi mooy sama mébét dana la wër ne lii ak réer la ak matadi la ak xamadi la waaye bu lay saa diggante yow rek damay jàpp ne ak njub la ak mat la fayda la su ma la amee rek ñàkkatuma dara lépp loo gërëm itam rek loolee moom laay mébét loolu dal na may doy dal na may neex wa in laa ma nii ndeem yedd na ma yow man ab bis li xubbiki ngir sa sopp laa ixun aji feeñ ay koo ci laaxa yalooxu waaye dafa mel ne laa imun aji yedd xëy na na mool bee bind rek la waaye wa in laa ma ni yow man li xubbiki laa imun fal ashwaaxu kon cofeel ya asammat taxloo nañu fii ki ci yow an sam iha walis seen dégg su kenn taxawee di may yedd cofeel yu ëpp yi day tax doo mën a dégg yedd yi muy wax koo mën di yedd ci ni ma la soppe itam daal damay mel ne ku tax rek du ma dégg dara ci la muy wax pak si fii kon yàlla na nga wuññ xam nga ci ci wari sa kanam gi almay mooy ni gëna guñ barkeel burxuan ak musóor faxal la siqaam yi xëy na lee sama jàngoro wish fa def na ko saafara bi nazaratin ci ab xool fii ki ci yow xal la jooju daay maxnaam laxal la maanaam xal la luxa la ci waxin la ci laxal la fa laxal la siqaam yi mooy maxnaam yi dana ko murli sa musóor gi ma gis sa kanam gi ndax su ma ne lay jàkk xëy na li ma amoon ci xeeti jàngoro te cofeel gi waral ko dana daal di wér fa saasay saasa wa juudi te nga tabe bi rashfatin ci ak ñeer mooy ak moocu min riixiki ci sa lor wi almasooli wa di wuñ lemal wi mel ne lem faxal la tulqaxu xëy na lee def na dalal xullat yi sama xundooñ gi bi riixin ci aw lor min ki wutukee ci yow sa lor wi dafa neex mel ne lem may ma muuc ca lu mu tuuti tuuti ndax xëy na su ma ca muucoo tuuti rek li mar wi metti metti daldi dal alaa yëgal far afi na nga ñëwante bii ci man yaa suleyma yow suleyma bi laxasatin ci as ngendiko laxal la lazal xijiraani xëy na lee sawaraw tong ga tut faa def na ko faye bi laxasatin ci as ngendiko ay suleyma yërëm ma may ma rek benn xool bu tuutee tuuti soo ma xoolee benn xool bu tuutee tuuti rek jàmb gi ma jàmboon te mel ne sawara wuy tàkk day daal di fay fi saasa fa xas bu kii doy na la maa la nga xam ne xat kaana am na rif xan kon ndànkalal ak ndànkal ñewanteel ak ñewante bidil hawa ci borom cofeel gile salabti rekki nga alxuqoola xel ya bil jufóoni ca mbari bët ya al maridat ya di aji tawat mu ne ko ay ñu ngi ma def jàmb ma ba ma àgg fii ma àgg doy na sëkk léegi nag yërëm ma ñewante ma sa bët yi boo ko dee xoole xool bu yërëmtalu mel ni xoolub ku tawat ku leen di jàkk ci yooyu jamono rek day mel day tàggoo sagoom mel ni àndat rek xelam felal waadu dëxal ba lil xooqoo bi ñal ooqoob waadu ki mooy sab dëxal innahu naka moom saxaabun aw niir la xaloobun wudi ab waraakon ba li fi nekk saraabun njanux la bi xiixatul nekk ci ay pàkk dane ko yow nag dangaa mel ne jongama yeñ xamoon rek la ngay diggee doo ca def dara day mel ne rek na ur xoob dalee woon mbokk ma tàndar ma naa ko bu nàngamee nga ñëw bu nàngamee nga ñëw bu nàngamee nga ñëw ba ñoree rek mu bopp ko daldi dem ak moom benn yoon ñu koy wax doxalu xurqoob boobu mu ne ko sa doxal yépp noonu lay mel mbaa nga ne bokk sa doxal day mel ne xiin wi xiin di jëf-jëfi mel ne bëgg a sotti ab taw te nekk xiinu ngelaw dong la dara du ca topp ci xeetu taw mbaa lu koy nuru ida lam yekkun ndem nekkut lii di ma ñeel taxal musun ak mën a rocciku ak mucc min jafaaki ci sa bëcc ngeel wa alxaatamay taseeg bil xajri ca tong ga fii ki ci yow kulla baliyati mépp musiba fashhad yi seereel lii ñeel ma yaa suleyma yow suleyma bi an na nii ci naka man taxal lëstu rekkiku naa wala rocciku naa ba set wecc min ki ci yow jaxaran ci lu bir bil xadiimi jëm ci sëriñ bi wasilat yi koy sama jotlikukaay mu ne Suleyma bu fekkee ne ni nga may ñàkkee teggiin ak ni nga may jàmboo mënuma fexe fexe ba nga bàyyi ko kon naa la fi bàyyi yow ne la ñukk yaag say jàmboog say ñàkki teggiin te dem ci sëriñ bi waxoon ne ni ñoom ma saadi way duñ jékki-jékki rek xëppati jaar ca la tax ñuy way tagg moo ko taxoon di way waaye gis nga na mu ko tàmbalee ci tudd congoma baas yu ne ko nag su fekkee ne ni nga may jàmboo ka ñàkkay teggiin mënuma cee mucc kon naa la fi bàyyi te dem ci sëriñ bi foofu lay tàmbalee nag tagg sëriñ bi taxal lu si samak rekkiku mbaa samak rocc ba set wecc minal waaniyaati tukkee na ci jongama ya kal bu dóori mel ne weer ya al mun yi rëtt yee aji leeral nee naa ko fi lépp lu ñëwoog jongama ak lu mu rafet rafet nee naa ko fi lépp lu ñëwoog jongama ak lu mu rafet rafet nee naa ko fi ñukk bàyyi ko fa te dem ci sëriñub sëriñ si ki nga xam ne mooy njiitul mboolem sëriñ si kon taxal lëstu rekkiku naa wala dañ naa ba set wecc min hindin ci hind wa lubb naa ak lubb naa wa bis nati ak bis na ila bni xabibillaahi jëm ci doomi xabibullaahi ja ahmada te mooy ahmad bamba sayidi kay sama sang kon bis ne tey dañ naa ba set wecc ci jongoma moo xam day ind moo xam day lubb naa moo xam day bis na dañ naa ci ñoom ba set wecc dem ci ahmadu bamba mi sëtoo ci abibullah fatan waa ji baax la lam talid ko mësta jur um saa jigéen bu hayda muhammadin ci gannaaw yonente yàlla muhammad ali ali yàlla na doole nekk ci moom assalaatu doole tedd nga mis la hoo am ke moom mooy mafulum bihim lam talid fil fadilati ci nganeel mu ne gannaaw bu yàlla feeñalee yonente bi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu feeñe ci soxna aminata yàlla feeñalaatut ci jenn jigéen ku mel ne cheikh ahmadou bamba kon gannaaw bu yonente bi jàllee feeñ ci soxna aminata kenn ku mel ne cheikh ahmadou bamba ku yàlla masa feeñal jaarale ko ci jenn jigéen mësta am te nag yàlla lu waay màgg-màgg ci doomi aadama yi